yu ndeysaan xale yi ndeysaan ñaari xale la ñu ne ci yoon man bëggu ma woon sax ñu daje ñu daje ñaari xale yi yàlla xam na ne ñaari xale yi nekk ci yoon la wallaay ku ne da waroon a jaar ne kii jaar ne ndax ku de ki def huit combat huit victoire keneen ki def huit combat wit fit arbitre baa ngi wax ak ñoom ndeysaan nee na leen suuf la bi moo leen di boole ndeysaan maam jaara wóor wa dem na këng waxe mag dem na jaani lu doon jaay léegi mu lambu waaye bébé guy gi ma ngay jat ma ngay def lu turandoom di def ma ngay def lu turandoom di def ma jat moom bébé guy gi ma ngay jat ngay jat moom bébé guy gi ndeysaan njaago bi lan la war a jat ci lan ci lan bi danaan la buntaakolo ulleefo nun pagaari min pilin ciu loolu lay jat ndeysaan daal di koy jox mbokku njaago yi waaye njakay sar buñ pilin ciu bu gaari waaye père pousal père sëgal lii na ko bàyyi ci làmb la lii yëpp ci làmb la na ci làmb la. per na pousse rek lépp ci làmb la ndeysaan. ndeysaan ancien amateur ndeysaan Cheikh Sarr. ancien président amateur. mooy Cheikh Sarr. arbitre wax naa ñoom pare nga pare na. arbitre bi soufflé na ndeysaan diggante bébé guy gi ak Tony Junior bu Kër Mbir Ndaw ndeysaan bébé guy gi ma nga bàyyi ko géejawaay di xale di ndaanaan Tony Junior. Ndiakhate Sarr ñaari xale seen leetoo bi sori na waaye dañuy daje far foosu. leetoo bi sori na moom lañ njëkkee waaye duñ ko mujjee. waaw ñu dajee ndax ay xale lañ. nee naa la loolu mënul ñàkk ndax loo ci nga xamante ni ñooy bàyyi xel SBT Média ñi nga am mbégte ak kontaan bu baax ak ñi nga xamante ni ñooy bàyyi lamb diaspora nee naa la àdduna lépp loo gis rek dañ koy waxtaanee te tey fii la lépp di xewee fii ci arène nationale nee na leen faaw ngeen daje si digg géew bi bu leen bàyyee sax ñu dajee seen bopp dañuy dajee oxo bébé Tony Signor ndeysaan ñaari xale yi huit combat huit victoire huit combat huit victoire ñaari mbër yi nekk ci yoon lañ tey ñu ngi si seen neuvième combat kenn moo ciy ñaari xale yaa ngi noonu nañ yoon yàgg yàgg bawul dara yàgg bawul boo xoolee da ko bëgg a tab ci flanc bi mais Tony Signor daa bañ heure bu ko jëlee Tony Signor daw kal ko fatt ko Tony Signor mbapatkat la mbapatkat la bërekat la mais Bébé Gouy Gui bërekat la xeexkat la ñaar suma jumul cinquante cinquante la. cinquante cinquante ñaari xale lañ ay bëri lañ. Oxo diggante Bébé gi Gui Tony Junior ñaari xale yaa ngi lewtoo da man tey baaraam moom Bébé guy gi moo ñu wan ginnaaw Tony Junior lañ jàkkaarloo moo ngemu ngemu lu am lu xonk li Bébé Gouy Gui moo ngemu ngemu lu xonk li mais naa buñ jàppantee buñ du yàgg waaye Tony Junior garde bi wàcc de yàqamti contact bi. da ko yàqamti. ko yàqamti contact bi. oho. moo tax ngi benn bennal mais xel mi yëpp ci jàppante la nekk. ndeysaan picc ma ca kaw waaye xel maa ngi suuf. boo xoolee kës bi mi ngi naan ko dalal. bi mu teg dafa jege euh, Tony si ndax ndax ndax ñoom ñaar fausse garde la garde normale. waaw loolu moom moo tax. à tout moment na song. mais gën Bébé du mën a xeex. boo xoolee da koy fatt. papier bi nga ko tegal day fatt xeexu Bébé Gouy Gui. loxo senior mi ngi tànk bi. day wàcc ci tànk bi ndax boo xoolee taxawaay bi rek nga xam ne song la bëgg. tamit Bébé Gouy Gui dafa mel ni ku bëgg a song. day eh, xëy diggante Bébé Gouy Gui Tony dem na day song. na xeex. ko eh door góor turaaj eh mbaa kaw doom. Bébé Gouy Gui Tony Junior jàpp na ko plaqué na ko daan na ko. Oh, oh xale kër mbir ndaw bi xoolal ma waa kër tundu jandeer waa kër mbir ndaw big Abdourahmane falang bi ndeysaan moom moom Tony Junior ndeysaan eh Omar Baye Karim daw na jëli ko ndeysaan mburu lamb diaspora ba daan na moom Tony Junior xale bi def na mbir neuf combats neuf victoire Ngone Dia ndeysaan bébé guy gi noonu Tony Junior daan la jëli bu ki la daan mbër la war na laa mën a daan champion d'Afrique la ki daan war na koo daan champion d'Afrique la ndeysaan waaye xoolal waa Kër Mbir Ndaw waa tund jandeer xale bi fa mu jógee sori na si dongoone mais xoolal la mu indi ci stade bi xoolal la mu indi ci stade bi oho waa Kër Mbir Ndaw tund jandeer ndeysaan nooto guy jama xale yaayu noonu kër ayib oho ndeysaan dëkk Abdourahmane Ndiaye falang bi moom Tony Junior waaye xolama ma ngay saafoon teg Zarko moom Tony Junior ko yëkkati ko léegi teg ko ndeysaan ñaari xale lu ko waral Libidor moom Zarko ñooy ànd dañ door ñu moog Tony Junior Libidor men magam la eh, Libidor magam la moo indi ak jam téeri ñoo ñooy dar Tony Junior xale bi fu mu jëm na ko moromam mi jël eh, yoon la nag ko moromam mi jël bi def na lu rëy System moog Talfa la Talfa xale bi ku ko jëlu danga ragal waaye xale la waaye xoolal fa muy jógee ndeysaan Tony Junior ndaanaan la laa la wax eh eh ndeysaan